noonu li may wax mooy ni euh, problème bi réglé wuñu ko définitivement parce que ñu ngi wax euh, projet wu euh, KMS 3 mais loolu euh, très vite on va être dépassé encore par la demande donc mbir bi war nañ ko mën a xóotal am na des pays très ambitieux comme le Maroc ñoom dañu am ay projets yu ñuy ooyee les autoroutes de l'eau am yeneen réew yoo xam ni moom la ñu def mais dañ ko def sur ay 30 euh, di ko tabax mu nekk loo xam ne dafa dëgër mais su dee da nga nekk ci logique yàkkamti bëgg simplement calmer le jeu euh, ndëpp dëppal mais la réalité mooy on est toujours dépassé par la demande de l'offre euh, ma gis ni tamit ci wax ji bi ñu laajee ministre bi il y a quelques moments dafa pointé woon du doigt ku mel ni Ablaye Wade en disant que régime Ablaye Wade deful li mu waroon def wante euh, dafa mel ni kii mu bëggoon pointer du doigt xëy na munu ko wax euh, au nom de la solidarité gouvernementale mooy son prédécesseur mu nekkoon euh, Mansour Faye bi fa nekkoon may laajte aussi en même temps Mansour fay lu tax ñu bëgg a tas département ministériel jël mbirum eau nga jël PUDC mu gérer benn parti eau bi donc en milieu rural kii di gérer benn parti eau bi par rapport donc au capital par rapport à yenn niveau Euh, dafa mel ni daal leerul te l'essentiel des moyens dafa mel ni dañ ko jëlee foofu dugal ko encore ci PUDC bi maanaam dafa am ñoo xam ni su dee ñoom ñooy gérer yenn programme yi dañuy rocci l'essentiel donc du budget ak li ci am solo di koy jox ñeneen ñi ñii di gérer donc des mini programmes soi-disant donc dañ koy segmenté pour le milieu rural. ma buggoon jeexalee fenn foo xam ni soxal na ma lool mooy problème mu euh, euh, désalinisation donc des eaux loolu réew mu mel ni Sénégal. amoo énergie amoo moyen amoo xaalis euh, yàlla jox la taw jox la ay cours d'eau da nga li nga war a def simplement mooy mettre un dispositif pour mën a capter donc eau yooyu nga mën ko mettre donc dans ces autoroutes yi ma doon évoqué. 70 pour cent de la population ñu ngi biir euh, euh, ñu ngi en milieu rural mais ces 70 pour cent là programme PUDC lañu leen tegal seen forage yàqu na ñu commencé yenn yi eggaliwuñu ko donc ñooñu ñooy souffrir. te ñooñu amuñu possibilité di manifester comme ñi nekk fii su seen eau coupé ndox nga gis leen donc li populations suuf donc li ma doon wax sànq encore une fois euh, liggéeyu fast track ay gaawantu la simplement ndëpp dëppal ci soo xoolee dañ koy def toujours ci perspective ay élection maintenant damay ñaan nguur gi mu jël à bras le corps donc ce pro problème là de l'eau qui est un problème récurrent te li ñuy wax agriculture ay PAP de de seen seen programme yu bëri yi PSE yooyu yëpp dee da nga bëgg une véritable transformation il faut mettre à l'aise le monde rural il faut que nit ñi naan ndox il faut que nit ñi am ndox pour irriguer donc seen i tool loolu yëpp nag dafa laaj encore une fois un projet d'envergure boo xam ne day irriguer tout le territoire national les autoroutes donc de l'eau marocains yi def nañ ko am yeneen réew yu ko def war nañ ko mën a def aussi